alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurril mayamin wa ala xayri xadimihi dil hablil matin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmiddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd bii nu nekk waaye di leen ndokkeel it ci bis bu tedd bii di jiital ci nuyoo boobu yi ak siyaar bi ndokkeel gi kilifa ak jotaay bi muy Sëriñ Seex Anta Mbakke nuyu bu baax a baax a baax di ko siyaar di ko ndokkeel di ko jox wàccuwaayam ci bés bi si musaa Diop samay kàddu koy tënk ci li nga junjoon ci gannaaw ne bés bi dafa làmb yetti yëf muy bisub sant la bisub ñaan la bisu fàttaliku la te yooyu yat lenn lu ci beroon lu nekk jan na taxawal bis ngir solo soo xam ne làmboo na ko bisub sant la sant nekk waruga warugar ci jullit bu nekk rawatina murit bu nag te cantit bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg bokkit ci melokaani sunu borom yi inna allaha ghafurun shakur cant googu it sunu digal digal nu ko nun jaam ñi fadkuruni adkurukum waaye washkuru lii wala takfurun kon beneen leen sant leen ma tu bu leen weddi kon ndigal ndigal la moo tax mu nekk lu am solo rawatina nag murit bi nga xam ne nag dafa aju ci sëñ tubaa te am ci sëñ tubaa cër boo xam ne wóor na ko ne xëy na eh, la ko may mën naa bañ a mën naa bañ a doon taxawaay mën naa bañ doon eh, waaye nag ci baaxu sëñ tubaa la ko suñu doon defalee cër boobee tey loo mënta ñàkk te mënoo ko amal sa bopp loolu kon war nga war nga war nga jaa sant bu baax a baax a baax te sëñ Fallu mi ku ne xam na ne am na cër ndax lii mu am nii du murid yépp ko am ndax sëñ Seex mii lii mu ko jagle bis at mu jot mu defe ko nii di kenn ndog moom saa seq nañ li ñu seq day wan ne rek am na ngërëmam te murid nag am koomam dëgg dëgg dëgg dëgg tey wëlërum dëgg dëgg mooy ma sëriñam dul ma la jox ci saaxir waaye ngërëm la mooy dëgg dëgg am koom na sëñ Moussa Ka sëñ sëñ ba jox ne woon sëriñ ngërëm laa di alal ne ci la barke neeki pal barke ak i pal lépp mu ngi ci ngërëmal sëriñ te li da woon ne kon sëriñ bi gërëm na ko kon war na kon war naa sant kon bu doon cant rek mu jar taxawal bis su dee ñaan it ba tey am wow wàccuwaay nekkul am solo lool ci lislaam ba tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne addu'a silahul mu'min ñaan mooy ngànnaayal julit waxaat na addu'a muqul ibada jaamu yàlla su fekkoonte ne jëmm la walla euh, ab cër la yokku gay tax mën a jóge dal mooy ñaan taxit Sëñ doon wax ne ite du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'u al hayya wa yujibul ujur ñaan dana jariñ ko faatu ba ne ca bàmmeel ya naan ñaan dana jariñ kiy dund ñaan dana jariñ it kiy ñaan ñaan ji da ko jural ay yool mu nekk lu am solo itam kon bu fekkoon ñaan rekk la te waru la ki nga aju ci moom mu defal loo xam ne mën la ko sa bopp su la wanee gannaaw war nga waxtu wane nga di ko fàttali ko ci ñaan ndax mooy li ci ëpp solo kon bu fekkoon ñaan gi rek la mu jar bés bi Eh, fàttaliku moom it nekk waru garu jullit sunte doomu aadama nekk ko baaxoo fàtte benn shaa'ir day wax ne eh, wa ma summiya al insaanu illa li nasiyihi wala al qalbu illa annahu nit dara tax ñu tuddu ko insaan lu may ak mën a fàtteem insaan mi ngi jóge ci baatum nisyaan mën a fàtte war la baatu baatu insaan mu ne xal xol it li tax mu tudd xalbu mooy li mu def taxallub xol day wëlbatiku di bëgg di bañ di bëgg di mer ila axir yi wëlbi du sax benn bala moo ci tudd alxalbu wa ma summiyal insaanu illa li xal wala xalbu illa anoo yataxallabu eh, moo tax na sunu waxtu nekk muy fàttalee saa buy waxee lu mu indi rek la muy daan wax ji mooy ngir ñiy fàttali ko li qawmin yatadakkaruun wa maa yadakkaru illa ulul albaab innama yatadakkaru ulul albaab ah, fa ah, xam ne waxtu nekk day wax ne su ma saa may digle rek mbaa may sant mbaa may wax dara mooy ña am xel ñoo ko jëfandikoo mooy ña am xel tey tey fàttali ko la allahum yaqiloon la allahum yatafakkaroon te lépp ci ci tafakkur ci tafakkur ak tadakkur waxtu nekk day day ñaar yoo xam ne dañu ànd mënuñoo teqali ko kon day ñetti yoo xam ne bu ci nekk bu ci bëri bu nekk rek jan na taxawal bis bi waaye waaye nag li ko lal lépp di taalibe buy sant ab sëriñam sant sa sëriñ te diggante sëriñ ak taalibe dafay loo xam ne la ko lal lépp pas-pas rek la pas-pas pas-pas képpit moo cay jariñ ñaanoon na Serigne Touba tàmbali gi borom dëkk bi di maam Cheikh maam Cheikh da borom gaawaan bokkoon bokk ak moom la jege jege jege ci bokk la mu am bokk mayu ko ko pas-pas moo ko ko may mooy da koo jox léppam dara jaam alalam man manam kàttanam lépp mu jox ko suñu ba mu jeex ba mu jeex tàkk teg fee mbokk ga moo tax moo ko may li mu am xam nga sa doom yi bàyyi ci bu fekkoon dañu xel dañu xalaat ci xelum kese rek lim ko defal moo ko njëkk defal sa doomi baay ngeen bokk benn baay nga at na xalango ci am ñax ngir fambal ko ab lay ngir fa muy jaar loolu dégg ko ñu taalibu kese bu ko defal ma tala ta ak nam demee ci moom kon mooy kon mooy wane ne kon lee la ko tegoon waaye pas rek la jiitaloon ci moom loolaa ko may nag lii mu am tey ña àndoon na moom ñëpp Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Massamba Diop Sam ak ña àndoon na moom ñëpp lañu am cër ya la muy rëy rëy rëy taalibi gaa leen ko may xam ngi mu xam nag taalibi nga am am solo ga moo tax ñi ñi ñi ñi ñi nga xam ne ñooy daritam di ay waa këram mu laabire lam leen laabiram ba tax ñu ñëpp ñu jël seen jor jaay ko jënd ko ak taalibi ni ko seeblaat waxee woon nag doom ju mu jur ju nekk ñëw nga fii sukk fi kanamam njureel gam gam la jur nga jaay ko jënd ko ak taalibi mu dee digal li muy digal taalibe dee tal li muy tere taalibe nga di jaam la ci ca taalibe am ba noppi walbati ko nag doon nag jëlaat na cër boobee ndax ba mu ko waxee ñoom sëñ Fallou sëñ Modou Sa ba noppi dafa ne li li fi nekk ku ko wut danga koy am ba noppi mu walbati ko di sa baay di sa mag di sa nijaay koo ji defal lu séqunu dara loolee nag kon bu sëñ Fallou kon taxawale bis bi ngir sant ab sëriñam ak delloo ko njëkkal eh, loolu kon def def na lu ko war def na lu ko war te murid bi nekkee na loolu la loolu la war a xënte woo waaye toll nañ jamono joo nag léegi yi yi fëkke bari na yi gàllankoor bari na yi xew ci lu rax li fi nekkoon bari na te lépp na la ko gën a doole mooy mooy réseaux sociaux yi saa boo ci delloo lu nekk nga di ko dégg ñu yàq pas-pas yi walbati walbati xel yi di walbati pas-pas yi di ko soppi nga fi daa di ñaan digal amatul ak yëpp mooy bëgg wëlbati xel murid ndax yoonu murid naka jekk la la fi nekkoon mooy benn baat la daa am genn kàddu képp la ma sa am eh, buum dafa tegoon ci ci ci nostali bi yépp ne ci loxol kenn kenn kookee su waxee buy ndigal ñëpp jëfe ji su leetare ñëpp bàyyi ko waaye tey dem na ba kenn ku nekk yaay sa kilifa ak bopp léegi lépp lu xew bala ñoo xam lu ciy position sëriñ bi kenn ko nekk dem nga ci internet bu wax wax sa wax ca saxalaat daan te Sëriñ Tuubaa bi muy bi muy bi muy lim sat taali taalibi taalibi taalibi ko dëggu ñaareel ba dafa waxoon mooy tarkul i'tiraad bàyyi diingat ak gaaral diingat mooy di laaj mbadd waxi sëñ bi mbaa ay jëfam di seet loo cee rafetlu ak loo cee ñaawlu te lool néew na loolu ñu ci mucc ci ñun ak mucc ci ñun sëñ boo wax mbaa mu jëf nga seet loo cee rafetlu ak loo cee ñaawlu mbaa la ca topp lu ci du topp mooy lii ngat gaaral nag mooy boole cay baat sëñ bi de wutoon wax nangam sëñ bi de wutoon def nangam sëñ bi de xam naa nag gaa yi ko ci dugal rek li fekk bàyyi ko ne la woon ni doonu ko am murit danga koy bàyyi ci saaxir bàyyi ko ci baatin bàyyi ko ci saaxir mooy doo ko wax ci solam bàyyi ko ci baatin mooy doo ko fas ci soxla wa thaani tarku li i'tiraadi zaahira wa baatin bàyyi ko na taahira kon nañu delloo koon foofu fii delloo li li naan delloo buñ ca boy boy ge mooy nañ ko delloo fa nekkoon fa maam Cheikh Anta nekkoon borom Daaru Muxti nekk fa Cheikh Ibra Fall fa nañ delluwaat foofa mooy sëriñ bi doon sëriñ bi taalib doon taalib bi suñ ko defee rek lépp baax la may jeexale la la la la la la sëñ Sirilo Sànn dénkoon Cheikh Moustapha Cheikh Mahamadul Fadil dañ faa dem ci ndigalal Sëriñ Tuubaa mooy li ma leen di dénk mooy na ngeen defar seen jëmm ba ku leen gis bëgg leen waaye na ngeen defar seen biir ba ko jaxasoo yéen dootu leen mën a muñ xam baraana koo gis bëgg ko waaye boo boo jaxasoo moom rek boo man a boo boo boo biiram rek ba ko mooy dafa defar bitteem te defaru biiram na nga defar sa bitti ba ku la gis bëgg la waaye defar sa biir ba ko ba ko la xas mos dootu la mën a muñ ndax ko ci tegal na ko li fekk yéen a ngi dooni sëriñ nu dooni taalibe lépp defaru waaye saa bu ngeen doone ay wuur nu dooni dag lépp yàqu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa